xaqa chani aw laama btidaa fi moohimin ilgaa ma taqaddama soo gisee lu defe loo ni lii ma tere am na ilgaa u ci libtidaa am na kon déedéet wan wi nattaleel foofa damiru chani dégg nga kon amil je kenn wëcci ko dafa jëf wala nga yéene laama libtidaa yi taqdir fa laamu libtidaa yi kon masala ma génn ci ilgaa u dem ci taaliq du dëgg loolu foo koy nattale fii moohimin ci lépp lu lay defeloo il daganu ilqa ama taqaddama ni dañoo ilqa u kay amil ju dawlu te loolu dañu noon du am foo gis lu la defeloon dagan na na nga xam ni déedéet amil ja damiru sa anu la nëbb mooy maf oolam bu njëkk du dëgg a wala nga nattale fa laamu lib dégg nga laamu libtida kon masalam taaliq la léegi du dëgg fii moohimin ilqa ama taqaddama dana ci du dee lu mel ni wa maa ixaalu baytu kile bu kii baana kaabu wa maa ixaalu ladaynaa minki tanwiilu tanwiilun ladaynaa yég nga mubtada xabar la tanwiilu mooy mubtada kon ixaalu dawlu na kooku kër dañu noon kenn du ilqaaw ci njëlbeen te kat ilqaaw am na fii ndax lu taxum ni wa maa ixaalu tanwilan la day na ñu ni kon ixaalu dafa nëbb damiru sha'nu mooy ma foolam bu jëkk wa maa ixaaluhu taqdiran loolu ngay taawil du dëgg wala laamul ibtida ni kadaaka uddibtu xatta saara min xuluqi inni wajadtu milaaku chiimatil adabu wajadtu du wajada danoon ci feeli naasix yi la nga ni wajadtu saydan fadilan léegi nag mu ni wajadtu milaaku chimati al adabu rafa mubtada xabar kon ilqaawu ma taqaddama lu tax ñu ni daganul ñun déet foofu taqdir fa laamu libtidaay mu nekk masalam tax li da ngaa nattale wajadtu la milaaku chimati al adabu ah waaye waa basra it nag xam nga takalluf la ñu mën rek andax ñoom seen qaayida du ñu nangu du ñu nangu du ñu laa yaqbaloona li qaayidati an tanxarima benn yoon moo tax seen nax wu fokk mu am takalluf wuuteeg waa Kuufa lu ñu dajee rek ni sañees na ko def ko xiyaas seen nax wu moo gën a yomb moo gën a faiblesse itam kenn mënu ko moo gën yomb waaye kenn mënu la takk seen qaayida Basra nag seen qaayida yomb naa takk ndax ñoom dañuy condamné fi benn barab leneen lu dikk ñu ne chartun la wala mu awwalun ah moo ëpp takalluf waaye nag mooy gën a neex a takk waa fii moohimin ilqa ama taqaddama na nga warlu dégg nga na nga nattale damiru sha'an wala nga nattale laamu libtidaa fii moohimin ci lépp lu lay defeloo ilqa ama wàcc amil joo xam ne taqaddama dafa jiitu ñaari lisim ya te ndax dana danu ni wa jawwi si lilqa ala fi libtida ilqa daga na waaye nag du ci ak yéeni soo tàmbalee fiil ji deeti ko xañ jëf te mooy ilqa loolu moom du mën a am bu fekkee ne nag da nga gis ci waxu arab loo xam ne loolu dong la la niru na nga jàpp ni déedéet amil ja wëccuñu ko lisimam day damiru sha'nu ju mu nëbb muy muy damiru sha'nu jumla jëy dikk fi kanamam mooy xabar ja su ko defee jëf ja ma nga fa mel na mu meloon dégg nga wa jawisi lil xaa la mooy ni ki baytu wow wa maa ixaalu ladaynaa min ki tanwiil wa maa ixaalu nëbb na huwa muy lisimam wa maa ixaalu huu jortuwuma ko moom mbir moomu mu ni ladaynaa tanwiilun min ka jumla jooju mooy kile dégg nga nee na kon noonu nga koy nattalee waaye doo nangu ni a amil ju dawlu dañu koo ilqa lima fiihi min tahiyati tahiyati al aamili lil amal summa qat'ihi anhu bi gayri mujib loolu dañu ko da damir chan wala nga yéene laamu libtida su ko defee masalama bañatee nekk masalam ilqaadi masalam taaliq su ko defee taaliq taxu la wacc amal wacc amal la ci lafz waaye ci ci maxal moom déedéet amal baa nga fa ni ki tey kadaaka uddibtu xata saara min xuluqi inni wajadtu milaaku chiimatil adabu kadaaka naka noonu uddibtu la ma yareese woon xataa saara ba mu mujj min xuluqi bokk samay jikko inni man wajadtu fekk naa gis nga wajadtu jiitu na su fekkoon da nga ne wajadtu milaaka chiimati al adaba muy ñaari mafool kooku mu leer waaye nag da ngaa rafaa milaaku ak adabu muy mubtara xabar kon wajattu da nga koo ilxaa ñu ni déedéet ilxaawul mutaqaddim du dagan ñu ni ay na nag ana amalam ñu ni ismuhu damirun mustatirun wajattuhu taqdiran da nga koo xadaf daal wajattuhu fekk naa ko moom mbir ma mooy mila milaaku chimati al adab kon kon mu nekk baabu taaliq waxal waltazimi taaliq qabla nafyima wa in wala laam ibtidain aw xasam kaza wal istifhamu za lahun xatab adawaat yii nag ñoom dañuy waral taaliqu amil suñu toppee ci moom yàq amalam ci lafz la mahal qabla nafyima la jëkk ma laqad alimta ma haulaai yantiquun laqad alimta alima waroon naam ñaari mafool haulaai moo waroon doon bu njëkk ba jumla yantiquuna di bu ñaareel ba waaye maa jaar fa yàq na jëf ja haulaai mubtada rek lay man doon yantiquuna di xabaram maami kon moo gàllankoor amil ji waaye teewul nag maxal bi moom maxalu nasb lay doon moom maxalu jumla ji barabu nasab ibtaalul amali lafzan am na dégg nga waaye laa maxalla ma ak in dégg nga ak in ni ki tey lu mu ko misaale wa tadunnuuna wa tadunnuuna in labistum illa qalilan tadunnuuna ngeen jortu ne in labistum saxu leen in jaxarafu naf yu la comme ma illa qalilan kon ba tey loolu in moo gàllankoor amil ji ci laf in wala laqad adénga zanantu la zaydun qaimun wala amrun kon zanantu ñaari mafoolam léegi kon nasabatu leen laftan waaye nag ñu ngi nekk ci barabu nasab bi looloy taale laa mubtida in wala wala qad alimu laman ishtaraahu maa lahu fi l axirati min xalaq laamul ibtidaa wal istifhaam itam alimtu azaydun qaimun am amrun wal istifham za ate bii ma waxte mooy taaliq in xatama lahu war na ñeel ko de alimtu azaydun qaimun am amrun bismillah ah li ilmi ah li ilmi irfanin wa danni tuhma taadiyatun li waxidin multazama ah dégg nga alima mën na yor maanaam arafa kese di feelu taam dootu doon feelu naas naaqis te su ko defee muy rafa faayil rek mu jeex zanna itam bu fekkee ni moom it firiwul jortu na xanaa tuumaal naa diw suriqal maalu fa zanantu zaydan sàcc nañu alal ja fa zanantu zaydan maanaam ma tuumaal ko ca moom laa ko teg kooku kon benn maf wala lay am de feelu taam la dootu naaqis feel bu doonul naaqis du doon naasix naaqis mooy mooy def nasx feelu taam du def nasx faayil rek lay rafaa su dee mutaaddi rafaa benn nasab ab maf wala ar alima bu dee arafa dootu feelu yàqin xanaa araf waxtu xam naa rek zanna bi maanaa ittahama tuumaal naa rek kooku taadiyatun jëlgati li waaxidin ci benn mafool multasamatun lu ñu taqoo la ci alima bi maanaa arafa ak zanna bi maanaa ittahama dégg nga wali ra a ruyan mi maali alima taaliba mafoleyni min qablun tama am na beneen ra'a bu dul gis naag bët ra'a bi maanaa gént naa gis ci nelaw kooku itam la alima ji am ñaari mafool daan def waxuñu ilmu irfan alima bu njëkk bi daan am ñaari mafool lañ ko daan jëfe ra'a bi maanaa gént naa gis itam dana ko def di am ñaari mafool waaw inniya araniya asiru xamran maanaa gént naa gis sama bopp ya jooju mooy mafool bu njëkk jumlay ñaareel mafoolu ñaareel bi jumlay asiru xamran mel ni da nga ni ra raay ara nafsi asiran xamra ta moo tax mu ni wa wali raa ruya ñeel na raa ji nga xam ne masdaram ruya lay doon dégg nga mooy gént wuteeg raa ja nga xam ne masdaram ru'yatan ra'aytuhu ru'yatan kooku gis ak bët la askaneel wan mi askaneel li ra'a ru'ya maa li alima la ñeeloon alima taaliba mafoole ni mbir mu mu doon wut ñaari mafoole wala tujis nag huna bila dalili suquuta maf'ulayni wala tujis bul daganal huna fii dégg nga s- eh, ci buntu eh, borom ñaari maf'ul yi raa taa suq bul daganal bila dalilin bu fekkee dalil amul bul daganal suquuta maf'ulayni xadafu ñaari maf'ul yi aw maf'ulin wala benn maf'ul su dalil amee nag nga sukkandiku ca lu dëgg bu ñu la noon hal zananta zaydan qaa'iman nga ne zanantu zanantu zaydan wala nga xadaf yëpp zanantu hal zananta zaydan qaa'iman nga ne zanantu léegi xadaf nga ko ndax tudd gi ñu tuddoon zaydan qaa'iman moo tegtale ni moom nga xadaf kon xa- suquutu maf'ulayni wala hal zananta ahadan qaa'iman hal zananta ahadan qaa'iman nga ne zanantu zaydan xadaf benn maf'ul ba tudd benn kooku dalil la tax waaye bu dalil amul nag bu ko def ah wute naag ci buntu zanna xal bii la wax woo waxunoog su fekkoon ni buntu kasaa la baabu kasaa ah, nga xam ni kon feel ja du naasix ñaari ma foo ya du woon mubtada xabar nga ni kasawtu zaydan jubbatan ak lu mel ne moom aataytu amran dirhaman aywa kooku moom dagan na xadaf ñaari mafool ya bi dalilin wa bila dalil wala xadaf benn mafool ba noo ko bu ñu bu ñu bu yoboo mu am dalil hal hal kasawta ah, ahadan jubbatan nga ni kasawtu saydan xadaf benn mafool wala hal kasawt hal kasawta saydan jubbatan nga ni kasawtu xadaf ñaari yëpp dugg dagan na waaye dagan naatam nga ni kasawtu rek bañ a wax ñaari mafooli wala kasawtu saydan bañ a wax loo ko sànq ndax kooku du feelu naasix ah te kon ñaari mafool yi du ñu woon mubtada xabar kon huna fii ci buntu naasix bee tax muy wax wa kad tadunnu al taqulu in wali mustafhiman bihi wa lam yanfasili bi gayri darfin aw bi darfin aw amal wa in bi baadi di fasalta yutam dégg nga waj al defal ah, taqulu fii lu mu daare on taqulu ndem muxaatab moo ko moom taqulu nga fi- au lieu nga di ko firee da ngay wax defal taqulu kat tadunnu ni ki tadunnu ci maanaam ak jëf ja yëpp waaye fokk nga defal sart ci jumhuru arab laa wax waxuma bani loxatu bani sulaym de nang ko def ndegam dafa topp ci mustafhamam bihi lu ñuy laajtee xam sag listifham wala yooyu ataqulu nga ni ataqulu zaydan qaa'iman du dëgg ataqulu maanaam ndax da nga defe zayd muy ko taxaw ataqulu zaydan qaa'iman kon taqulu feelu mu daare on topp na ci hamsa ak listifham loolu nga defa yaa ngi dégg waaw waj al defal taqulu niki tadunnu ci maanaak jëf in waliya su toppee mustafhamam bihi adaat bu ñuy laajtee niki hamsa ak listifham nga ne ataqulu te nag walam yam fasil te fekk faj ci tàqalikoo wut ak hamsa ga bi xayri zarfin ci lu dul zaraf de bu dee zaraf moom eh, dana dana dana dagan du ko tee dagan aw ka zarfin wala boog lu mel ni zarf niki bu dee jaar ak majruur niki nag niki tey boo noon a indaka taqulu zaydan qa muqiman wala afi daari dégg ngeen wa bu fekkee zarf rek a jaar seen diggante xel du jàpp yar de bu fekkee zarf rek a dox seen diggante du ko tee mën a baax nga ni a indaka taqulu zaydan muqiman diggante hamsa gi ak taqulu ji zaraf jaar na su fekkoon ne jaar ak majruur fa jaar nga ni afid daari taqulu zaydan muqiman ba tey du ko tee baax aw amal wala amalu maamool ma boog amal ji ma ngi naa ay wala maamool du na dégg nga ni ko misaalu amal nag nu seet lu mu ko misaale ah ataqulu ah kooku dara jaarul diggante mataa ji ak fiil mu daaroo bi mustafham bii bi mooy mataa bi mata taqulu lqulus arrawasima ah waxal yaxmilna umma qaasimin wa qaasima ah mata taqulu alqulus ar kooku mooy in waliya mustafhaman bihi rek kooku bokkut ak walam yanfasil de kooku lim fisaal amu fu ah, aw amal aw amal kay ci lanu ne damay bata baaxoon aw amal naxwu a amran taqulu muntaliqan léegi amal bi mooy maamulu fiil bi a amran taqulu muntaliqan ba tey ñooyam a juhaalan taqulu bani lu ayin la amru abika am mutajahilina ba tey ñooyam mafoolu taqulu a taqulu jahilan a taqulu amran a amran bismillah wa in wa in fasalta soo tàqalee bi baadi di ci lenn ci yiimalim yoxtamal des na ko toxa toxale ca arab de bu fekkee ni zaraf wala jaar ak majrur wala maamul maamulu fiil ja ñoo tàqalee kooku du ko tee baax dégg nga wa ujriya al qawlu ka zannin mutlaqa inda sulaymin naxwu qul za mushfiqa dama danu waxoon man la inda jumhuril arab lu dul banu sulaym ñoom baat feel ju ñu xare ci xawlu mutlaqan ñoom danañu ko jëfandikoo comme zann rek du ñu sart mu nekk feelu mu daarew du ñu sart adaatul istifham dawlu ko mu ne mel ni ki ñu ne qul za mushfiqan seetal qul ak ñaari mafoolam qul jortool za kii mushfiqan muy ko jàq seetal feelu lamar la du feelu mu daare o àndul ak adaatul istifham àndul ak dara loolu banu sulaym qabila la ci arab ñoom seen waxin seen làkkin ñoom danañu ko def loolu mooy wa ujriya dawalees na baatu qawlu ka zannin mutlaqan mudaari on la wala déet listifaam dawlu na ko wala déet inda sulaymin fi waxinu banu sulaym ñu ne naxwu ñu ne qul za mushfiqan qul zaydan qaiman bi maana adun ah ida ma jara itfayni ida ma jara shawayni wabtalla itfuhu taqulu hasiisa riixi marrat bi ashabi amrul qays ida ma jara bu fas bi dawee shaw shawayni ñaari xel wabtalla te tooy itfuhu welam taqulu nga jortu ni hasiisu riixi aji riddi ngelaw marrat moo romb bi asab ci garab yi ñuy wax asab moo mooy coow lu xumb loolu xam sa néew ci adaatul istifhaam néew ila thalaasatin ara wa alima addaw ida saara ara wa aclama wa ma li mafcuulay alimtu mutlaqa lithaani wa thalisi aydan xuqiqa xam nga alima ak raa ci afaalul qalbi la bokk ci nawaasix yi la bokk daan nasab ñaari mafcuul mubtada xabar dali dañ koy soppi def ko yaari mafcuul nasab leen aywa kon nag comme ñoom ci seen tab u bopp ñaari mafcuul la ñu daan am su ci hamsak taadiya dikkee da koy yokkal beneen mu doon ñetti mafcuul ndaxte xam nga ni toujours xam ngeen ni lazim soo indee xam sa taadiya mu soppi bu mu taaddi am benn maf jala sa toog na diw da nga naan toog naa rek waaye nag soo ne aji la sa zay toog loo na ko mu daal di am maf boo ne aji la sa zaydun amran waaye waa ji ñu wax say toog loo na amr seetal aji la sa rafaana faayil nasab mafoon xam sa gee tax su fekkoon ni nag feel juy am mafool la bi tabihi mutaaddi ni ki darabtu zaydan nga def ko afala day am ñaari mafool nga ne adrabtu zaydan amra aywa seetal zaydan ak mafool faayil la woon bu njëkk léegi afala soppi na ko mafool andi beneen alama ak ara yi nga xam ñoom par ñaar la ñu doon am naka jeeg dégg nga li kaw ni fii la naasixan qalbiyan soo ko defee alama mu daal di am yett toujours afala bi dafay yokk benn moom la ne addaw dañuy jalgatiloo dañuy jàllaloo ra'a ak alima ila thalathatin kañ ida saara bu ñu mujjee bi sababi xam si taadiya suñu mujjee nekk ara ak alama ra'a ak alima la woon tey nekk na ara ak alam ñu am ñett ñett yooyu nag wa maali mafolay alimtu la nga xamoon mu ñeel ñaari mafoli alimtu min jawaasi lil xaa'i wa wujubi taaliq mutlaqan mooy jawaasu yaar yooyu daganu lil xaa ak wujubu taaliq yëpp loola kat xoqiqa wóoral nañu ko li saani wa saalisi aydan ñeel mafoolu ñaareel bi ak bu ñetteel ba du dëgg alim na jàngoon nga passé ni danañu ko def wa jawwisi lil xaa laal fi libtida du dëgg mook taaliq waxu noon seeni atte waaye nag ci ña- ñaari mafool yi woon ñi alima la daan am soo ko defee alama def na ñett ndax ba waroon doon faayil day doon mafool bu gan fekk fi ñaari mafool ya fi ne woon su ko defee lilqa ak taaliq bi daan am ci ñaari mafool yooyee nga xam ni ñoom doo nga woon tey ñoom la ñu tudde bu ñaareel ak bu ñetteel ba tey lilqa ak taaliq mu ngi ci moom la ni wama wama li mafoolay alimtu la nekkoon ñeel ñaali mafooli alimtu mutlaqan moo xam lil xaaw ak wala taaliq kooku xoqiqa wóoral nañu ko li saani wa saalisi aydan tey bi mu doonee yet wa in taaddayaa bila ham wa in taaddayaa li waaxidin bila hamsin fa lisnayni bihi tawassala léegi alama ak ara su fekkoon ne dañu ma- taaddayaa dañu daan mën a joti li waaxidin ñeel benn mafool bi laa xam sin suñu àndul ak xam sa taadiya benn mooy bi an yakoona alima irfaniya wara wara a basariya alima su dee irfaniya maanaam xam na kese kese kooku benn mafool la daan am raa bu dee gis na ci bët benn mafool la daan am su ko defee euh, su fekkee ni taaddayaa li waaxidin bi laa xam sin kon fa tawassala dañuy jokkaloo bihi ci hamsa lilis nay ni ci ñaar comme ni nu waxoon sànq su fekkee daan nañu amal seen benn mafool seen bopp lañ ko daan nasabal soo ca defee hamsa ñu am ñaar te waaw su boobaa nag nga xam ne yoroo feelu naasix yow de ndax sa raa ji bi maanaa absara bi aynihi sa alima ji bi maanaa arafa kon de yoruloo feelu naasix kon feelu taam nga am boo xam ne li mu nasab benn mafool la su boobaa bi nga ko defee afaala ba mu am yaarit lil xaa ak taaliq du dugg foofu de mooy wa saani minhuma kaza nisnay kaza fa huwa bihi fi kulli xukmin zu tisa wa saani minhuma su boobaa ñaari mafool yooyu alama bi maanaa arafa la woon ñaareelu mafoolam kaza minhuma ci alama ak ara kaza nisnay kasa ma ngi mel ni ñaareelu mafoolu kasa sànge na kasa ak lu mel na moom soo ne kasawtu zaydan xamisan may naa diw am mbubb kasawtu amran xamisan ñaari mafool yooyu du woon mubtada ak cosaan ak xabar du dëgg musul nekk mukk zaydun xamisun déedéet am ndax feel ji du naasix su ko defee nag aywa ñaari mafooli kasaa yooyu nee na alama ak ara su fekkee ni benn mafool la ñu daan am léegi de am nañu ñaar ngir loolu mafoolu ñaareel ma moog mafoolu ñaareelu kasa ñooyam kat fimtinaa'i lilgaa'i wa taaliq ak it fii jawaasil xasfi bi dalilin wa bila dalil ni nga mënee ni kasawtu saydan rek bañ a wax li nga ko sànge lan la xadaf mafoolu ñaareel bi man nga ni alamtu zaydan xamal naa ko yey alamtuhul xabara nga ni alamtuhu rek fa huwa bihi fii kulli xukmin boroomuk roy la ci moom fii kulli xukmin ci bépp atte du ti saa in boroomuk roy la ca maanaam kon lil xaa oog taaliq du am ci boobu mafool te itam dagan naa xadaf bi dalilin wa bila dalilin xasab almuraad wa ka ara saabiqi nabba axbara xaddasa anbaa kadaka xabbara wa nabba ci nasab ñetti mafoolam ak axbara ak xaddasa ak ambaa kazaaka na ko noonu xabara juróom yi ka ara saabiq moog ara bee dawlu woon ñooyam ci nasab ñetti mafool misaalu seen seeni shabaahit nabaa nee nga wa nubbitu xaysan walam abluhu kama zaamu xayra ahlil yaman seetal nubbitu a ba tey kooku naabixa ñaari shahid la boobat baax na nubbitu zurata wa safahatu kasmiha yahdi ilayya garaiba al ashcaari su ko defee nag fiil yi nag ñoom juróom yi bala ñoo am naay faal day fekk nag ñu def leen mabniyu lil majhul fiilu murakkab lay doon su ko defee naay bu faayil foo ko fekk kat mafool la waroon doon aywa su ko defee kon naay bu faayil ji yorug rafa ñaari mafool yi ca des nag yorug nasab mooy nubbitu zorata gis nga ko ko tu ji mooy mafool bu njëkk mooy naay faay aywa zorata mooy mafoolu ñaareel ana ñetteel ba jumlay yuhdi ilayya garaib al ashari jumla jooju moo nekk mooy jumla ji ma palaasu mafoolam baraat bu nasab la ne naka bayti waxoon bismillah axbara it wa ma alayki ida uxbirti nii danifan wa xaaba baaluki yowman an taudini jigéen lay waxal wa ma alayki lan moo la war a tiis ida uxbirti nii danifan suñu ma la xamalee ni dama feebar day xasal ci soor su ndaw rek di wane ni mu ko bëgg wa xaaba baaluki yowman te sa jëkkër je làq nekku fi benn bis rek an taudini ma alayki loola lu tax dooma man seet si waaw day xasal day wax ni mu ko bëggee ci ni arab ji doon wax uxbirti naay fayil ji mooy mafool ji taajooju yaw mutakallim mooy bu ñaareel dani fan mooy bu ñetteel ah ak banati nga def haddasa da nga ne na mu ko xe zuhair aw manaatum ma tusaluuna fa man xuddistumuuhu lahu alayna al ala wala wala u ñaari riwaaya fa man xuddistumuuhu xuddistumuuhu tum ji mooy naay fayil hu ji mooy mafoolu ñaareel jumlay la hoo alaynal alaaw ilaaxiri moo yor barabu nasab mooy mafoolu ñetteel ah am ba a wa umbitu qaysan wa lam abluhu kama zaamu xayra ahli yaman umbitu taa ji mooy naay fayil mooy mafoolu qaysan mooy bu ñafeel xayra ahlil yaman kooku mooy mafoolu ñetteel moom itam mu des ban xabbara wa xubbirtu sawda alxamimi maridatan fa aqbaltu min ahli bi misra auduha moom it day xasal ci jigéen rek ah wa xubbirtu tuji mooy naay faal sawda alxamim turu jigéen la mooy mafoolu ñaareel maridatan mooy bu ñetteel alamana allahu wa iyaakum an taqawal amal fail alladi mooy faayil ci naxwu faayilu xaqiqatan huwa allahu taala wa faayilu lugatan mooy aji def lu mu kuy aji tabax ak aji def lu ne faayil ci istilaax lisim la alladi mooy lisim ja nga xam ni ka marfooay ata zeydin muniran wajhuhu ñaar yi ñu rafaa ci boo ne ata zeydun ak wala nga ni mu ni ran di aji leer wajhuhu kanamam mooy wajhuhu jooju zeydun ak wajhuhu jooju nicma baax na alfatawaaja ak fata jooju léegi nag ñetti marfo la tudd de te dafoo ne ka marfo ay ata zeydun mu ni ran wajhuhu nimal fata ni ki yaar yu ñu rafaa yi ci ñetti jumla yooyu ñu ni waaw ndaxam ñaar la marfo ay ni rek la waxte tudd yet waaye dafa jublu ka marfo ay lismi wal fiil ka marfoo ayil fiili wal ism ni ki lu ñu rafaal lu feel rafaa wala lisim rafaa ko gannaaw ga feel itam nag mën na doon jaamit mën na doon mustaq mën na doon mustaq ni ki ata mën na doon jaamit ni ki neama loolu taaddudul am si la dafa misaal ci feel ay ay nawa nawaani naw ayil fiili la misaal waaye kon ñaar la bi maanaa lism ak feel ndax feel jins la su yeboo atta la su yeboo nicma benn ngoog boog aywa benn bi lisim la ni ki zeydun maanaa muniran muniran lisim la moom ismu faayil la te moo rafa wajhu dégg nga ismu faayil dana jëf-jëfi feel mu ni kon faayil moo mel ni marfoo ay lismi wal fiil marfoo ay lismi marfoo lismi ni ki muniran wajhuhu wajhuhu lisma ko rafa muniran wala marfoo ul fiili te kon yaari misaal yëpp moom la fata nicma jaamit ji moo ko rafa zeydun ata mustaq bi moo ko rafa wa baada fiilin faailun fa in zahar fahwa wa illa fa damirun istatar wa baada fiilin ci gannaaw fiil lay dikk faail maanaam wala yakunu alfailu illa baada alfiil fa inna alfaila la yataqaddamu ala alfili ala madhabi albasriyina xilaafan lilkuufiyin waa basra dagana lu ñu faayil di dawlu déedéet bu naree dawlu nekk mubtada de fiil ja jumlay fiil ja di xabara moo tax mu ni wa baada fiilin ci gannaaw fiil lay ñëw faayil fa in zahara su fa feeñee daal fahwa mooma leer na wa illaa su fa feeñu li nit fa damir la jooxaa ne istatara nëbb na yarjiu lil mubtada il mutaqaddim soo noon zeydun qaama waa basra dañu naan qaama fiil la faayilam doonul ni mooy Zayd ma le déedéet daf ciy topp istatara nag léegi nëbbu na dellu ci Zayd waaye faayil moom du dikk lu dul gannaaw feeñ su feeñee feeñ na su ca nëbboot nëbbu na ca waaye nag du ko jiitu mukk wa baada fiilin faailun fa in zahar fahwa moom mooma leer na wa illaa bu feeñul fa damirun istatara yarjiu lil mubtada'i qablahu yarjiu lil madkuri